TV ñu ngi leen di nuyu fu ngeen manti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di wàccee seen wàccuwaay di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ci kàttanam nga ak mbaaxam nga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 di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ci kàttanam nga ak mbaaxam nga yàlla nañu defal jàmm ci biir réew mi ak ci bitim réew mi yàlla nañu yàlla sàmm sàmmal ñu suñu diine sàmmal ñu tamit suñu àdduna mbokk yi niñ ko baaxoo amal ñëw àndaat ak yéen ci seen émission bii di tawxiid di wéetal yàlla di kennal yàlla ñoo ngi woon ak ci buntu bu am solo mooy buntu tawxidul asma wa sifaat tawxidullahi fi asmaihi wa sifaatihi muy wéetal suñ borom subhaanahu wa taala te kennal ko ci ay turam ak ay melokaanam ñi ngi ci yamoon ci wax yitte ji nga xamante ni solo si nga xamante ni xam bunt boobu am na ko ci lañu yemoon xam le ni rek ci gàttal mooy benn buntu dong bu ñu mën a jaare pour xamee ci yàlla mooy xam ay turam ak xam ay melokaanam nan lañu xamee turam ak ay melokaanam mooy nag ñaareelu pàcc bi ndax li tax ñu tudde ko tawxiidul ilmi alxabari tawxiidul ilmi ndax dafa jëm ci xam-xamub xam xam suñu boroom subhaanahu wa taala waaye ci luñ koy xame lan mooy doon jumtuwaay yi lan mooy doon moyen bi ñuy xamee suñu boroom subhaanahu wa taala loolu nag alxabari mooy ci ni mu ñu ko xabaaree boppam comme que yàlla kenn mënu koo peek kenn mënu koo xam moom moo xam li mu ñu mën a xamal ci boppam mën ñu koo xamal ci ay turam ak ay melokaanam ñu àttan ko mu xamal ñu loola loo tax xam yàlla beneen xabaar du ci doy beneen xabaar du ci wér ci xamle suñu tur yi suñu borom ak ay melokaanam loolu ni daa jóge ci yonente yi te loola jóge ci yonente yi suñu borom subhaanahu wa moo leen ko wax ngir ñu xamal ñu ko naka noonu tamit xam nan lañuy jëfee ba am ngërëmul yàlla mënuñu koo xamit lu dul ni dañ koo xamee ci làmmeñu yonente yi ndax yàlla loolu moo tax mu yónni yonent yi ngir lan ñu jàngal ñu xamal ñu yoon wa nga xamante ni moo ñuy àggale ci ngërëmam yoon wa nga xamante ni topp ko mooy tax ñu topp attey sharia tax ñu xam fa ñu mujj buñ ko toppee tax ñu xam bu ñu wuuteeg ndigali suñu borom yooyu fan la ñu mujjee lii moo doonoon woote gi nga xamante ni moo fi indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yi ko jiitu woon yépp tamit loolu moo nekkoon seen mission mooy lan di woote ngir nit ñi xam seen boroom ci ay turam ak ay melokaanam waaye tegtal leen yoon wi nga xamante ni fi lañ war a jaar ngir xam nan lañ koy jaamoo kon gis nga yonent yi ñoo ñu xamal lu xaraam ñoo ñu xamal lu dagan ñoo ñu xamal nan la jaamoo yàlla ñoo ñu xamal tëralin yi yàlla tëral bañ ñu xamalee loolu tamit ba pare xamal ñu nag ku ci topp ndigalu yàlla yooyu fañ lay mujje ku ko ci sàggane ba topp ko tamit fan lay mujje loolu tax cosaanu xam-xam bu wér mooy cosaanu gëm yàlla ci ay turam ak ay melokaanam ndax wéetal yàlla kennal ko mu ngi sukkandiku ci loolu kenn mënula xalaat ni sa ngëm yàlla mën naa wér lu dul ni danga xam sa boroom ndax ñaar yooyu dañoo taqaloo benn mënta dem bàyyi li nga xamante ni moom mooy moroomam bala ngay gëm la ngay gëm danga koy danga koy xam bala ngay gëm bala ngay bëgg la ngay bëgg danga koy xam te ngëm googu mooy indi li nga xamante ni mooy tax ba jaam bi bëgg boroomam subhaanahu wa taala daw di ko wuti léegi nag ñu ñëw ci xeetu xam yàlla yi am bu ñu waxee xam suñu boroom subhaanahu wa mën nañ koo xaaj ci ñaari xaaj am na lu ñu tuddee maarifa ijmaliya ak maarifa tafsiliya maarifa ijmaliya mooy xam yàlla ci tënk ci tënk maarifa tafsiliya mooy xam yàlla ci teqantal ci teqantal benn bu ci nekk nañ ko nañ ko leeral taxaw ci tuuti ndax mu gën a leer ci ñun maarifa ijmaaliya xam yàlla ci tënk mooy li nga xamante ni sa ngëm yàlla ci la mën a taxaw mooy li nga xamante ni mooy tax nga mën a xàmmee yàlla ak mooy li tax nga mën a xàmmee yàlla ak yaali loolu ñu ngi koy xamee fan ñu ngi koy xame ci xam yàlla ci tënk mooy tax tamit nga mën a mucc ci bokkaale ak ci kéefër moo lay génne tamit ci réere sa boroom dugg ci xam sa boroom xam gi mooy xam gi nga xamante ni jullit ñi ñi ëpp ci jullit ñi moom lañ ko xam xam gi nag mënees na ko amee rek ci suuratul ixlaas saaru qul huwa allahu ahad ku ko xam mbaa nga dégg ko ba gëm li ci nekk rek xam nga yàlla am nga xam-xam maarifa euh, ijmaaliya xam-xam gu tënku gi xam gu tënku gi xam nga ko yàlla kon ñu taxawaat tuuti rek ci sóoratu ixlaas boobu suñu borom subhaanahu wa daf cee wax baada audu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim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 amul ab nawle kenn dong la amul ku ko ñaareel amul ñett amul ñeent yàlla limuwul kenn dong la allahu samad nee na tamit moom la ñëpp jublu moom la ñëpp soxlaal te soxlaalu kenn dara kan gis nga loolu tamit turu yàlla la mooy tur woon as-samadu ki nga xamante ni moom la ñëpp soxlaal moom la ñëpp jublu te soxlaalul kenn yàlla kon moo bind lépp te dara bind ko mooy wërsëgal lépp lu nekk ci kaw asamaan ak suuf te soxlawul wërsëg ci kenn maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imun ni mu ko waxee nee na soxlawul ci doomu aadama yi wërsëg soxlawul ci ñoom ngir ñu di ko lele mu soog a ñëw ci kon foofu xam nga ni yàlla moo bind tawxidu bi xam nga ni kenn la mu soog a ñëw ci yeneen melokaan yi lam yalid yàlla jurul kenn walam yuulad te kenn juru ko yàlla jurul adopté wul kenn tamit wa maa yanbaghi lirrahmaani an yattaxida waladan suñu borom moo ko wax nee na yellul ci yàlla sax muy muy jàppe kenn ni doomam la kenn juru ko kon du góor du jigéen amul waajur walam yakun lahu kufuwan ahad te yàlla amul nawle amul nawle kon gis nga fii saxal na fi ay melokaan ay tur yoo xamante ni dafay wane ak matam lépp loo xamante day wane ak wàññiku day wane ak wàññiku walla ak maasoloo ak dara mu dàq ko kon lii moom dong moo ko jagoo kon qul huwa allahu ahad maanaa jooju ku ko xam xam saar wi xam maanaa yow xam nga sa boroom lan mooy des mooy nga gëm ko boo ko gëmee xam nga sa borom li ñu tuddee maarifa ijmaliya loolu tamit moo nekk ci ayatul kursi ayatul kursi suñ borom subhanahu wa taala fi lay waxee ni allahu la ilaha illa huwa alxayul qayum yàlla mooy amul benn buur bu ñu jaamu ci dëgg kudul moom alxayul qayum moo dund te moo fi sax ku dund te du dee suñu borom subhaanahu wa taala dong la moo fi sax yor kàttan gu dul jeex du sonn du lot kenn dong la mooy yàlla allah laa taaxuduhu sinatun wala nawm suñ borom subhaanahu du gëmmentu waxuma laak sax di nelaw kon gis nga am gëmment melokaan wàññeeku la ndax day wane faiblesse day wane sonn day wane soxlawoo woo goo leneen ay nelaw nag waxi noppi ba laaye ji jeex kon gis nga ku dégg euh, li nekk ci ayatul kursi ak li nekk ci qul huwallahu ahad loolu lan la maarifa ijmaali yi la xam boroom ci tënk te xam googu nag mënuta ñàkk kenn ku ci nekk xam ko ngir sa ngëm yàlla mën a wér ngir sa tawxiid mën a wér mooy xam ni yàlla kenn la xam ni moo bind lépp xam ni moo moom lépp xam ni mooy tëral lépp xam ni mooy dundal mooy rey xam ni mooy joxe njariñ mooy joxe lor xam ni moom dong lañu war a jaamu am dong mooy yelloo ñu jàmm ko xam ni tamit bépp melokaanu manki melokaan wuy wane ni lii dafa manki melokaan wuy wane ni lii dafa soxlaal leneen melokaan yooyu yépp dafa dàqu ci moom lii ku ko xam xam nga sa boroom maarifatan ijmaliyan xam nga sa xam nga yàlla ci tënk xam yàlla ci tënk nag am na geneen xam yàlla gu ko gën a féete kaw mooy beneen ñaareelu xaaj bi mooy xam yàlla nag ci teqantal mooy lan mooy nit ki lépp loo xamante ni suñu borom subhaanahu wa taala melale na ko boppam wépp melokaan wum melale boppam walla wépp tur wum tudde boppam mu xam maanaa ja xam fa mu ne loolu jàpp naa ne yow lu détaillé la mooy lu détaillé mooy xam-xam bu détaillé bi loolu nag moom boroom xam-xam yi ñi nga xamante ne dañoo géeju ci xam-xam ñoo ko ñoo ko mën a xam yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñëpp xam-xam boobu nag tënkuwul fen lépp lu ci nit ki di dolliku ci ngëmam yàlla di gën di dëgër ragal yàllaam di gën a dëgër cofeelam ci boroomam di gën a dëgër la tax suñ borom subhaanahu wa taala di wax ci suuratu faatiri ay ñaar fukk ak juróom-ñett innama yaxsha allaha min ibaadihi al-ulamaa innama min ibaadihi ci ay jaamam nee na ñenn dong la loolu ñi xam waxinu arab ak niñ koy tëre ak niñ koy tëggee xam nañ faa'il ji nu mujjeel jiital maf'ul ja li tax ñu def ko mooy ngir tënk war na ni la ñenn dong ñoo mooy ñi mën a ragal yàlla mooy ñen al ulama waroom xam-xam yi kon pour nga mën a ragal yàlla faw danga koy xam xam gu tënku te xam-xam googu nag lu muy gën di yokk ba jëm ci xam gu détaillé ga ngay gën di gën di yokk ak ragal yàlla kon ñaari xeetu xam yi moom la nit kii di xam suñu boroom subhaanahu wa taala xam xam yii nag saa yu dikkee rek ci nit ki daf ko yokk daf ko yokk euh, ak dëgër daf ko yokk euh, ngëm yàlla daf ko yokk tamit ab xolam di gën di di gën di bëgg boroomam loo tax tamit dañuy wax naan ñi koy ñi xam tamit ci ñetti la comme niñ ko tënkee woon ci euh, ci ci comme niñ ko tënkee woon boroom xam-xam yi nga xamante ne xam nañ lii ñetti xaaj lañu ñetti xaaj lañu dañuy xaaj boroom xam-xam yi ci ñetti xaaj. xaaj bu njëkk bi mooy xam maanaam dañuy xaaj xam-xam xam suñu borom subhaanahu wa ci ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi mooy xam suñu boroom xam yàlla te boobu buñ ko waxee liñ ci jublu mooy xam li mu melale boppam ci ay tuur ak ay melokaan daal di koy gëm loolu mooy waral nit ki di ragal yàlla te nit ki bu ko xamee day ragal yàlla day topp yàlla day moytu fu mu tollu di def ay bàkkaar ndax xam na tuur yi ak melokaan yi nañ ci dikk léegi ci sens bi beneen bu ñaareel bi ci xam ngi mooy xam ay àtteem ak ay tëralinam xam li mu digle xam li mu tere xam li mu daganal xam li mu xaraamal loolu bu ko xamee mooy kon moom xam na li yàlla farataal ci moom looloo tax mag ñi dañ daan wax naan boroom xam-xam ñetti lañ am na ci koo xamante ne dafa xam yàlla waaye xamul ay ndigalam xamul ndigal yàlla maanaam xam na yàlla ak ay melokaayam waaye xamul dara nag ci sharia ci lu xaraam lu dagan ak lu nangam am koo xamante ni xam na ndigali yàlla yi waaye xamul yàlla loolu tamit dañ koy gis am na ci koo xamante ni nag xam na yàlla ci boppam waaye xam na ay ndigali yàlla loolu nag mooy martaba ba ci gën a kawe yàlla nañ ci yàlla boole ki nga xamante ni moom xam na yàlla xam na ay ndigali yàlla kooku mooy ki nga xamante ni dafay mën a moytulu lu xaraam te du dugg ci bokkaale te lépp lu mu def rek lépp lu muy def rek day tegu ci yoon yàlla nañ ci yàlla boole loolu tax mën ngaa gis koo xamante ni boroom xam-xam la ci fiq fiq maanaam xam na lu xaraam xam na lu dagan lu ñu jullee nu ñu nangam nu ñu nangam nu te teewul dafay am ak bokkaale gu nekk ci moom ndax lan ndax kooku xam na li yàlla digle waaye xamul yàlla loolu day am naka noonu tamit ngay gis koo xamante ni koo xamante ni xam na yàlla waaye xamul li yàlla digle xamul li yàlla digle mooy am na tawxiid waaye yeneen atte yi moom xamu ci dara wax la bi ci gën te gën cee kawe mooy xam yàlla xam li mu xam li mu digle yàlla nañ ko yàlla defal te niñ koy xamee nag mooy amul wenn yoon wul rek jaare ko ci ay turam ak ay melokaanam loolu tax suñu borom subhaanahu wa bind gi mu bind doomu aadama ci suuf kon lépp dafa bind euh, doomu aadama ci suuf bind ko ci ruux loolu tax muy wax ni fa inna xalaqnaakum min turaab ci suratu xaj yi fi mu naan bu fekkee da ngeen di sikki sàkk ci lu ma leen sàkkee maa ngi leen sàkkee ci suuf benn scientifique dafa wax ni <laughs> misaal bi gën a dafa wax ni liy confirmer loolu ni yàlla mi ngi bind doomu aadama ci suuf li ci gën a ndaw mooy nee na matière yi nekk ci yaramu doomu aadama mooy nekk ci suuf ay fer ay zinc ay dikki magnésium ay sodium yooyu rek nee na moo nekk ci suuf beneen tegtal bi mooy doomu aadama saa yu ñu ko defee ci suuf balaa yàgg mu nekkaat suuf ndax suñ borom nee na ci suuf la ko bind ci suuf la koy delloo loolu nga xamante ne da koo bind ci suuf muy jëmmi doomu aadama moo tax dafay soxla lan dafay soxla di dunde yoo xamante ni ci suuf lay jógee ay dafay soxla di lekk soxla di naan ngir di mën a dundal aw yaramam ngir man di toppatoo aw yaramam ndax loolu ci suuf la jóge te ci suuf lay delloo waaye nag suñ borom subhaanahu wa taala ba mu bindee doomu aadama fare daf cee wal ruux ruux googa nag ma nga bawoo ca moom la bawoo ca moom nag dafa soxla loo xamante ni la koy dundal nekkul loo xamante ni suuf lay jógee waaye ci kaw lay jógee mooy dafay nekk xam-xam bu dëgër boo xamante ni dafay lalu ci ilmi xabar yi xam-xam boo xamante ni ca yàlla la jóge loola tax xam yàlla ci ay turam ak ay melokaanam mooy dundal ruuxuk doomu aadama mooy tax nga dund mooy tax yow sa ruux di dund te dunduk ruux dafa ëpp solo fuuf dunduk yaram yaram moom euh, ay sax rekk koy mujje waaye nag ruux nit ki bu faatoo mooy dem barsax barsax nag bu fa demee la ruuxam doon liggéey ruuxam la mu doon def ci àdduna ci lañ koy faye barzax nga xamante ni ñaari kër moo fa am kërug xéewal mu nekk ci xéewal ba faw wala mu nekk ci ci mbugal ba mbugal ba faw yàlla na yàlla musal ci mbugalum safara bu ko defee kon tamit ñu wax nag man meññet la Euh, xam yàlla ci ay turam ak ay melokaanam moom lay indi yenn meññet moom lay indi sikki sàkk amul ni xam yàlla day dolli ngëm dafay dëgëral sa kóolute gi nga am ci sa borom daf lay xëccal ak leer xëccal la leeruk xol ngir nga mën a xam fan ngay teg sa tànk ci àdduna waaye ngir nga mën a mucc ci lënt lënt yi ngir nga mën a mucc tamit ci bànneex yu xaraam yi loolu pour nga am ko faaw da ngay xam yàlla ci ay turam ak ay melokaanam xam googu nag wax naa lu mu gën di dëgër dafay gën di suuxat ci yow ak ragal yàlla waa xam ngi kon ban njariñ lay am mooy tur wu nekk tur wu nekk ci turi yàlla yi subhaanahu wa taala tur wi dafa taqook wenn melokaan boo xamee tur wa xam melokaan wa loolu daf lay diriger pour ngay jëfee la nga xamante ni moom la moom la tur wa ak melokaan wa moom la moom la làmboo loola tax ci misaal koo xamante ni xam na ni xam na ni yàlla mooy dundal mooy rey moo joxe mooy xañ lii ci turi suñu borom la subhaanahu wa taala ak ay melokaanam nit ki bu ko xamee ba pare xam ni àdduna yépp bu nu daje woon bëgg koo lor mënuñu koo lor lu dul yàlla da ca ànd xam ni àdduna yépp bu ñu daje woon bëgg koo jariñ mënuñu koo jariñ lu dul ni yàlla daf ca ànd loolu bu ko xasee xam day wàkkiirlu ci yàlla day jox ay mbiram boroomam mu wóor ko ni ko mbir yi yàlla moo ko yor te lu mu dogal lool muy am xam gi nit ki di xam ni suñu boroom subhaanahu wa taala mi ngi dégg lépp dara amul dara lu koy raw inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fi l ardi fi sama yàlla dara dara nëbbu ko ci asamaan ak suuf mu ngi koy gis ak di ko dégg moo xam lu nëbbu xam lu feeñ xam sax li nit ki di xalaat ak li muy nëbb ci biir ab dënnam yi ay tur suñ borom la ak ay melokaan